te fay ñu leen lu ko jar jàmbaar lañu 2017 ba léegi ñi ngi ànd ak ñun lu ne daj nañ ko ci ñenn ci ñoom dem nañu kaso parce que simplement dañ doon def seen liggéey à cette formidable jeunesse que vous êtes ñun on bu vous mérite pas mérité wuñu jeunesse bi on bu vous mérite pas lenn rek la ñu mën a def pour delloo leen njukkal mooy jël réew mi liggéey ko moo tax je veux terminer sur une note d'espoir parce que du tey du sama bés bésu candidat Bassirou Diomaye Faye la moo tax du sori ci wax ji projet bi ñun faluñu benn nit seetaan ko Pastef musul am culte de la personnalité te yàlla li mu def sax boo moytul moo gën ndax yàq yaakaar naa ni bu doon may candidat bi yàlla def ñu fal ma peut-être di ngeen ma rusee lu bëree bëri bëri président Diomaye dinañ ko fal duñ ko fal bàyyi ko mu dem dañ koy fal ànd ak moom parce que nag du du jëmmam moo ñu intéressé waaye projet bi ñu togg teg ko ci loxoom moo ñu intéressé bis bu bëggee teggee ko ci projet boobu dinañu xëcc nopp yi ne ko sama rak dellusi parce que moom moo réew waaye man man man mi leen ko proposé man mi leen ko proposé xam naa ni Diomaye Faye du mës a jàdd lu toll ni tarfataay yàgg naa leen wax ni moo ma gën a jub moo ma gën a am organisation moo ma gën a am méthode maa ko dàq wax nag maa ko gën a boo waaye moo ma ëpp jub kon kon dañuy ànd ak moom ci liggéey bi ànd ceeg mboolem ñi ànd ak ñun ma profité ci di remercier toutes les formations politiques tous les leaders toutes les associations yi bàyyi seen yitte bàyyi seen gis-gis ñëw ànd ak ñun ci liggéey bi mbooloo mooy doole mbooloo mooy doole mbooloo mooy doole ma bëggoon nag terminer sur une note d'espoir dama bëgg yéen jeunesse sénégalaise ak suñu papa yi nekk ci kër yi suñu yaay yi dama bëgg ñu xam ni à partir de dimanche bi nous entrerons dans le monde des possibles tout est possible rien n'est impossible que personne ne vous fasse croire qu'on ne peut pas incarner notre propre souveraineté nous serons désormais un État souverain indépendant qui collaborera avec tout le monde mais dans des partenariats gagnant-gagnant et non pas dans des contrats léonins c'est fini que personne, que personne, et surtout pas les intellectuels complexés, certains intellectuels complexés qui veulent nous faire croire qu'il est impossible de renégocier nos contrats miniers et pétroliers qui sont au détriment du Sénégal. C'est faux, nous les renégocierons. Que personne ne vous fasse croire qu'il n'est pas possible de réfléchir souverainement sur notre propre politique monétaire. C'est faux, nous allons le faire. à partir de ce dimanche, nous entrons dans une nouvelle ère qui sera des possibles, l'ère du développement, l'ère du progrès, leer du rééquilibrage de nos relations avec le monde. dama bëgg ngeen gëm loolu te su ngeen ko diggee nañ ko def mbokk yi li ci des bëriwul te seen candidat dafa war a wax ak yéen man maa leen ne caaxaan taxul ma tànn Bassirou Diomaye Diakhar Faye balaa ma koy jox kaddu gi nag dama leen di présenté samay soxla samay soxna laa leen di présenter balaa ma leen di jox kàddu gi muy ay soxnay président Bassirou Diomaye Faye ma leen di présenter d'abord merci Maya Diakhar ma présenté leen yaay koy wajal dafa jotoon nag réew mi am président bu yor ñaar au moins parewuma sama présentation madame dama leen di présenter kii sama yaay la ndax moo jur Ousmane Faye di madame